Hampâté Bâ bu Ndakaaru foofee centre d'examen bu université Amadou Hampâté Bâ mu mel ni rek candidat yi commencé nañoo génn seen salle d'examen ginaaw bi nga xamee ni def nañ lii di épreuve bu philosophie ba noppi. ci loolee chef de centre bi moom moo ñuy xamal li nga xam ni moo di statistiques yi. bu ñu xaymee am nañu junni ak euh, lu tegal ci ay candidats ñu séddale leen ci juróomi jury jury bu ci nekk presque euh, ci gën tuuti def na. Euh, ñetti téeméer ak lu tegal tuuti ci candidat. foofee ca jury 17 93. kii di Mor Ndongo nekk président du jury bi. moo ngi xamle ni. amoon nañ tuuti ci ay jafe-jafe ngir rek démarrer à temps. juste am nañu un peu de par rapport aux surveillants et par rapport aussi euh, ak élèves yu xaw a donc mais je pense que premier jour bi rek moom mooy am lii mais on a pu démarrer on a pu euh, mujj nañ def tout ba commencer à 8 heures. au lieu de 7 mais commencé nañ à ci weneen fànn wi foofee ca lycée Blaise Diagne ak yeneen centre yu bari ay mesures nañ fa daloon di jël ngir rek examen yi mën a dérouler ci ne mu waree. waaw am nañu kii euh, waa police ñu ngi fii waa sapeur pompier tam ñu ngi fii donc fi mu nekk nii daal euh, mën nañu wax daal amuñu benn jafe-jafe daal surveillant yi tamit ñëw nañu bu mu des euh, ñeent surveillant ñoo manqué. ci loolee candidat yi nga xam ne ñoom ñooy def examen ñoo ngi apprécier sujet yi nga xam ni def nañ ko ba pare. ah sujet bi moom xaw na yomb. nekkul woon pression ci man nag parce que nekk nañ boobu di réviser lu yàgg suñu prof si jàppale nañ moo tax nekkul woon loo xamante ne lu muy jaaxal. ci atum ren mi nag lu tollook cent cinquante cinq mille cent neuf candidats yoo war a jàmmaarloo def li nga xam ni moo di baccalauréat ci loolee bu ñu sukkandikoo ci candidat yi ñoom ñoo ngi xam ne donte am nañ ay jafe-jafe ngir rek mën a comprendre yi les sujets wala sax di rencontrer li nga xam ne moo di ay mots ñoom ñëpp ñoo ngi wëy du dundee yaakaar ngir rek yeneen épreuve yi ñëw mën a